للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد حمدي وشكري لمن كل بي سارة loo leen doon soxtal intasar saara mboo ko jëlee ku dégg noonu ñu tijjee noonu xam ni kat ñu ngi wàcc wàccaay woo xamante ñu ngi jëm fële ci gànnaar ci ngir màggal bis bi nga xamante ne moom la fa sëñ bi amaloon waaye ñu taxawaat jëru ñi nga xam ne ñoo ëmb liggéey bi fekkee fekkee suñu suñu càmmoñ ci am Basiru képp koo xam ne que xam ne am solo la ci liggéey Sarsara bi nga xam ne mooy yaatal liggéey sëñ bi ñu fekkoog sëñ sëñ ñing mi xam ne moom mooy yor communication bi kon xam naa dañuy jox sëñ Basiru rek mu nuyoo mbokki taalibe yi ngir leeral mbokki taalibe nan la waajee yoon wi nga xamante ni moo lañ fas yéene amal. Ah, sant yàlla bu baax julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikhul Khadim di ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi loolu tër di ko ñaanal kilifa yëpp eh, liggéey bi nag wax dëgg yàlla liggéey suñu toile boo xam ni moo ko yoral boppam moomul ko boppam comme kum ci xiir rek nga nekk ci di ci def dara war ko ko sant sëñ bi te xam ni sëñ bi la ci dimbali boppam eh, boobu ba léegi ñuy waaj liggéeyu Sar saara ba agsi tey jii ci départ bi ndax daa waaj nañ ko yàlla dogal amul ndax corona bi waaye ren yàlla dagal yëf yi sedd yàlla na fa jaare jeex ñu am uh, ndigal lu bàyyi ko ci sëñ Muntaxa jaar ci sëñ Sidi ñu war a def màggal bi fële ca Mauritanie di ziara Sar Sara kon tey ji altine di ñaar fukki fan uh, ak benn ci weeru juin ci lañuy ñuy déparé fii ci Massalikul Jinaan ngir woote war a wutali uh, wutali réewum Mauritanie ngir màggali dëkk boobu nga xam fële sëñ Tuubaa nekkoon ñu dem ziara ci dëkk boobu barkeelu fa ñaan fa dekkal fa nek bu seigne touba nekkoon ak it projet yu reuy fa am projet long terme yo xam inshallah dana tax dekk bobu ñepp gën ko xam mu wara nek nek dekk xam-xam dekk bu ñepp faq di fa dem ndax la fa seigne touba wax fofu rek la ko wax moy ku fi ñew takaliko bakkar adina ak alakhirah alaaxira. Hmm. jërëjëf seigne Basirou kaddu amna am solo lool waye melni ni tamit ko xam liggey bi xamna yoon yu manam day melni dina jaar ay ay ñoo xam day doon ay escale ñu bëggon tamit nga leer mbok ni kat ñi baye xel liggey bi mën a waaja bu baax a baax ndax liggéey Sarsara war naa doon maanam bu ñuy départ mu doon bis yu bëree bëri dina jóge fi jëm jëm Mauritanie waaw yoon wi am na ay escale wax dëgg yàlla daanuñu escale Louga waaye reen loolu dañ ko fomm ndax it situation bu dee mooy changé contexte ndax xam ngeen ni ci corona la ñu nekk te Mauritanie ba léegi seen couvre-feu dañagul kon xëy na jàpp nañu bu ñu jaaree Louga temps bañ fay def war a jaar ndax def fa temps daa ñu xaw a tardé Rosso moo tax ñu bëgg def directement dem fanaan ni Ndar bu ñu fa jigee dugg Rosso mën a teel a jéggi fleuve bi dugg réew Mauritanie balaa yàgg dara ñu wutali sot ndax njëkkanti ak waxtu yi nga xam ni euh, balaa couvre-feu bi di agsi ñu mën a àgg ak sot daal di dallu euh, àgg li liggéey bi la ca des loolu moo tax ren ñu doxalee ko noonu ci wàllu jaaruwaay jaaruwaay bu nekk itam am na sabab muy jaaruwaayu Louga bi ci at yu njëkk yi dañ daan ziar ji Serigne Sambay wax dëgg yàlla di dugg di koy ñaanal di ñaanal suñu bopp jaar Saint-Louis def point de presse jóge fa dem Rosso nga xam ne mooy dëkk bi mujj si diggante Sénégal ak Mauritanie daje fa ak suñu ay mbokki taalibe yu baax ku mel ni Serigne Modou Sarr ma nga xam ne mooy jëwriñ ja ak ñoom seqal liggéey ba ñoom suñu Abdourahmane Seck ak ñoom suñu Xaadim Ndongo ñu ganale taal bi suñ tuwaay yi jox leen ñu lekk naan dallu soog jéggi dex gi nag wutali réewum Mauritanie loolu ci wàllu jaarwaay at jot noonu la def ren it noonu la ñu fas def ba mu des rek xëj na étape bu luga te xëj na njëkkanti ak waxtu yi moo tax ren ñu ñu bàyyi bàyyi noonu incha allah bu ëllëg ak jàmm incha allahu taala. incha allah waaw jërëjëf sëñ Bassirou ñu ngi sant bu baax a baax ca kàddu am solo kon sëñ Bass ci ginnaaw ba nga nuyoo bokk taal bi xam bàyyi liggéey bi ana yankaat tamit nga mën a leeralee maanaam ñi nga xamante ne ñooy teewlu liggéey bi ngir liggéeyal sa saar bi maa warta yem ci ay jëm rek waaye war naa gën a yaatu yaataay boo xamante ni bu demee bay départ di fi rek mbooloo mi gën a takku ni nii ah, jërëjëf sëñ bi ñu ngi sant bu baax a baax di sant Serigne baax di sant suñu borom tamit subhaanahu wa taala julli ci alayhi salaam di kontaan bu baax a baax di wax ne waa liggéey bi noonu nga wax ne eh, war na doon liggéey boo xamante ne nii ñiy topp jotaay yi te di ñu seetaan xam nañu ne eh, liggéey bi warta yem ci ay jëmm rek effectivement ndax eh, kuréel gi moom moo wuyoo noonu ndax mu ngi tudd kuréelu Sarsara yaatal liggéey Serigne Touba donc kon nekk na liggéey boo xamante ne nii liggéey bu yaatu la yaatu gi moom moo tax sax ñu dem tey jii ba euh, kuréel gi nga xam ne ñoom ñooy saytu liggéey bi comité directeur bi yamul sax fii ci Ndakaaru nga xam ne génn na mu ngi fépp ci région yi euh, Saint-Louis Euh, Ngunjaan Kaolack mbuur fépp foo xamante ne bii nii ne région bu mag la rek am nañ fa koo xamante ne moo fay représenté liggéey bi loolu nag bu ñu demee ba ay jëmm di ñu représenté fenn loolu mooy firndeel ne kon liggéey bi dafa war a yaatu ba euh, délégation bi jóge fii nii au niveau di Dakar sax dépassé nii nii ah, loolu nag yaakaar naa ne euh, ku gis kuréel gi ni muy doxee nga xam ne xam nañ ne danañ mës a atteindre objectif boobu parce que bu ñu fàttalikoo ci ginnaaw buñ daan départ daan nañ départ ak minikaaru 14 places dem ba si benn njaganjaay dem ba si benn bis on sox ñu ngi gaare trois bis yoo xamante ne nii fees na del macha allah ak ay oto yu ndaw kon gis nañ ne euh, fi nga xamante ne nii fi la ñu nekk muy di woo nit ñi ci sëriñ bi ñoom it yaakaar naa ne ay taalibe ku leen woo ci sëriñ bi dañ lay wuy ci sëriñ bi buñ la wuy see tamit la ngay séq ak ñoom na doon sëriñ bi donc su loolu amee rek yaakaar naa ne liggéey bi dana yokku te am nañ ci yaakaar bu baax a baax te doxin ko xam nañu ne liggéey bi liggéey la boo xam ne dafay dem ndax liggéeyu sëñ Tuubaa bu sell la liggéey sëñ Tuubaa bu màgg la kon ñi ngi ciy woo àddina si yëpp ñi ngi ciy woo jullit yëpp ñi ngi ciy woo tamit taalibi sëñ Tuubaa yi loolu daal lañu am lu ñuy tàmbalee waaw ah, jërëjëf sëñ Bàcc kàddu gi na solo waaye mu mel ne tamit maanaam liggéey maanaam ban ko tàmbalee yàgg na ñu bëggoon a xamal nit ñi ni maanaam bi mooy ñaatal édition ndax ku dégg Sarsara yàgg koo dégg waaye ku dégg tur yi ni nga wooye muy kuréel Sarsara yaatal liggéey sëriñ bi yaa war yaakaar naa ne tamit war naa gën a yaatu waaw loolu dëgg la liggéey bi mel na ni euh, bu fekkente ne jëmbi màggal gi ren ji moo nekk 17e édition cela veut dire que ne euh, célébré nañ ko 17 fois euh, kuréelu Sarsara nag ren ji moom moo nekk 12 ans yoo xamante ne kuréelu Sarsara mi ngi existé ci 12 ans yooyu nag def nañu ay jéego waaye xeeb nañ li ñu def ndax lan am nañ xemmemteefu mu doon kuréel goo xamante ne dafay international te am nañu loolu parce que am nañu ay jëmm yoo xamante ne ñi ngi ñi ngi nekk ba extérieur di ñu jàppale ci liggéey bi di ko coordonné foofu malgré tout ak contexte bi ñu nekk terewul ñoom it ñi ngi def seen liggéey ku nekk xam na ne ci jamono ji ñu nekk sax jafe na mobiliser mbooloo mu toll nii kon ñun ci jamono contexte bi suñu mënee mobiliser lu mel nii rek mooy wane ne bu doonu woon ak loolu dinañ dinañ dinañ def lu raw lii loolu yëpp nag nañ ko sante sëriñ bi waaye tamit euh, ñu gën a góorgóorluwaat rek yokku jéego yi takkaat laxasaay yi te mais fii moom kenn deful dara kenn defalul kenn dara kenn deful kenn dara tamit lépp lu waay def rek sa bopp rawatina liggéeyal Sëñ Tuubaa moom kenn liggéeyalu Sëñ Tuubaa sax sa bopp ngay liggéeyal kon daal kuréel gi mu ngi noonu lu yaatu la lu ubbeeku la loo xam ne tëjaluñ kenn suñuy bur suñuy porte képp koo xamante ne bi ni ne soxla nga benn information ci liggéey bi wala nga bëgg a ñëw ànd a ñun ci liggéey bi ubbil nañ la suñu ay buntu yaakaar naa ne dinañ faral di joxe ay numéro téléphone à chaque fois pour bëgg nit ñi di ci numéro yooyu pour mën a ñëw impliqué wu biir liggéey bi ndax ci kenn xeebuñu ci kenn kon daal loolu moom moo doon kàddu yi للمصطفى نويت ما يجدد سنته الخرى وإني أحمد